حافظوا jullit yi bokki taalibe yi amaat nañ mbégte ci toog ci jataay bi nga xam ne jataayub Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha la yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér mu yëkkatiwaat ndigal lu jëmaat ci mbooleem yoonu murit wépp jaarale ko fam ko baaxoo jaarale mu di ki mu jox kàddoom mu di cheikh Mouhamadul Bashir moom cheikh Abdul Xaadir ndigal loolu nag cheikh Mouhamadul Bashir fas yéene yëkkati da ci ànd ak waa daayira Muxadamatul Xidma bi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ju mag ji ci sëriñ bu soo jiite ko te ndigal loolu jaar ci jumaa ji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 woolu waa daairatu muqaddamatul xidma ci njiital sëriñ Afi Busa al bi ñu agsee itam sëriñ bi yëkkati ay kàddu wax ndigal li nga xam ne bëgg na ko ci joxe na ko ci ndigal yi ci dëkk bi ci jàkka yi ñu war koo saytu war koo taxawu kon li nga xam ne santaane na ko ci ginnaaw bu mu ci joxee ndigal jottali leen ko sëriñ Afi Bousso dana ci ñëw ak ñu ko ci war a àggaleel ngir leeral leen ni nga xam ne la ko sëriñ bi santaane ñuy ñaanal nag bu baax sëriñ bi mu yàgg fii te ànd ak wér ndax li ma ko wax léegi rek li ëpp solo ci li nga xam ne suñ borom defal na ko mooy ku gis jëmmam rek mu delloo la ci yàlla suñ borom ndax farlu ga ci jaamu yàlla ak jël léppam jox ko yàlla suñu boroom te bokkaaliwu ci dara waaye jël léppam itam jox ko Sëriñ laxasaayu doonu taalibe bi ku mel noonu nag kon Sëriñ dafa fàggul ak njabootam ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkal ku fi agsi rek mate ku sëkk mm-hmm. moom mii nag yàlla dafa def ku fi mës a jaar rek mu laxasaayu euh, doonu taalibe bi ba laq sa ngërëm ba tey muy Serigne Touba bi mu doonee Serigne Touba ba nageen itam ku ne xam na ne lépp loo xam ne mi ngi koy santaane génnut ndigali Serigne Touba muy kilifa gu bari yërmaane goo xam ne bu sañoon ñëpp ne ci jàmm bu sañoon fitna du am fenn moo tax itam loolu nga xam ne moom lay dund te di ko yëg ci diggam ak Serigne suñu borom faye ko ko ci biir xoli taalibe wa min saadati fata xaysu xasat yor yurduhu fu addu si rasat moo tax Cheikh ma Mountakha mu taalibi Serigne Touba yi ak njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ku ci ne jàpp nga ne séddal la ci bopp loo xam ne mësu ko am ci kenn ku ci jàpp nga ne itam sédd na la ci boppam loo xam ko kenn waaye ni mu ko defee ci taalibi Serigne Touba def ko ci bokk yi noonu la ko def ci mboolem jullit yi la Serigne Touba waxoon ne fépp fu ngeen gisee ab jullit rek na ngeen ko def. muy seenum bokk Cheikh Modou Mountakha loolu lay dund kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg fi te ànd ak wér ndax yitteem jëpp wax naa ko ko léegi ñun ñii kenn ku ci ne yaa ngi jéem a góorlu ci sellal sa digg ak Serigne mm-hmm. loo man ci sa digg sa borom nga di ko def waaye moom nag da caa sax te boolewu ci dara boolewu Serigne Touba dara amul benn bëgg-bëggu àdduna lenn loo xam ne mën ngaa wax ne Cheikh Mouhoun Cheikh Mouhoun taxaa bëgg na ko ci àdduna xamu du kër du du du du oto du dara mm-hmm. léppam Sëriñ la ko jox kilifa gouverneur la ko yàlla def war nga saa soo xëyee di xoolaat ci moom te ci moom te xam ne lim lay digal mm-hmm. mooy doon la gën ci yow te Sëriñ Tuubaa kat bi mu sosee yoonu murit da koo tegal ay sart wa ma huwa salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari mm-hmm. bokk na ci lépp taaliba war a def mooy bu sëriñ bi diglee bul xool la gën a jub ci sam xel ndax boobaa topp gi ngay topp sëriñ bi doo xamante lu muy jëriñ ndax sëriñ bàkk bu soo waxtu dama di ko fàttali mm-hmm. moo ko waxoon mm-hmm. moom mii itam nag ndegam moo dox suñ digg sëriñ Tuubaa lu mu ñu digal rek dañ ko war a def mm-hmm. wa tarkul ictiraadi mutlaqan walaw bi waatin alay fi ma xadaw sëriñ Tuubaa nee na taalibe bi balaa ak taalibe mu wér du dingeen mukk ab sëriñam doonte waxuma dingeen ko dingeen ko ci bit waaye du ko dingeen ci biir te Cheikh Serigne bii kan nag ku ne xam na ne lenn loo xam ne ak matadi la wala lu ko nit war a mën a sikke yàlla def ko ci moom. Mm-hmm. kon nag ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lu tànd ak wér euh, dëppoo ak rek wa maa kaana li muminin wala muminatin isa qadallahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul xiyaratu min amri loolu suñ borom santaanoon ci suñ digg ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mii nekk fi mu toog tey. moo doon Serigne Touba te Serigne moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon lépp lu ñuy wax rek nañu xam ne wa maa yantiqu anil hawa ni ngeen ko xamee mooy euh, fii àdduna toll lii nga xam ne ak wér di la te suñu boroom wàcc ko ci kaw suuf te mu waxoon ca la Serigne Touba ca euh, peste ba boo amee ci njëriñ mbindeefum yàlla suñ borom la mu fa wàcce wax doo ko suñu borom jeexale mu jóge fi. waaye kon li ci suñ borom santaane ci àdduna ci lu ñu war a sàmmote loolu sëriñ bi mu ngi koy fàttali looloo waral sax ngir nag bëgge eh, gàttandu dogalu suñ boroom moo tax sëriñ bi di santaane lii nga xam ne mi ngi koy santaane ci biir loolu itam nag ñu ngi ñaanal bu baax xew-xew bi nga xam ne amoon na fa nii ci jàkke jooju ba ay jàppante am fa ñu ngi masawu njaboot ga ndax ñoom ñëpp taalibe Sëriñ Tuubaa dëkk bi ku fi ñëw ku ne dangaa gàddaay ngir yaakaar yërmande yàlla yaakaar xettiku Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa waxoon ne ku fi sam xel indiwu soo indi la fi kon nag ñi fi ñëw ñëpp loolu leen fi indi kon nag képp koo xam ne lu mel noonu dal na la fi te muy doog a suñu borom loola ñu ngi koy ñu ngi leen ci ñu ngi koy ànd ak ñoom tey eh, digal ñi nga xam ne itam ñoo yor loolu ñu gën a teg ak doomu aadama yi sàmmonteeg itam nii jëflanteeg nit ndax euh, nit dodul bant suñ borom daa wax ne wala xad karam na ba ni aadama kon boo koy digal loo xam ne njariñam itam bokk na ci xikma ba nga fexe boo waxee ko ko noo xam ne dan la mën a dégg muy ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana ndax loo rek ko ko indi kon li ci des ma bàyyi ak suñu affaire bu so mu sànni ci kàddu bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiya almursalin wa ala alihi wa sahbi wa xadimi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julli di setaan ba di dégg ñu nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di jiital suñu nuyu ak suñu ziyaare ak sunu ndokkeel ak sunu wala aq cheikh Mouhamadou Mountakha xafisahullah wara di ko ci loxo yi cheikh Mouhamadou Bachir yi ngir mu tegal ci loxoom di sant yàlla bu baax di yeesal sunu jaayante ak cheikhul xadim di ñaan sunu saxal na ci ak taalibe ñu dund ci saatu ci yëf sax ci ndigal ba faw sëñ bi dana nag ngir doon dolli ak cantam ak yeesalam ndigal ci taxawaay ci liggéey bii mu dénk muy jumaa ji muy lu taxawaay nag di soññee itam nag ci ñu dolli taxawaay ni mu gën a mate nu fa sëriñ ko defee noonu yi nga xam ñoonu ko sëriñ bi sante di ñaan nag mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp ñu jàppaleetu ci ba sëriñ bi bëggee ko noonu mu ko santaane mu santaane nag aw melokaan la woo xam ni Cheikh Abdoulaye dana ko leeral léegi Cheikh Abdoulaye na ko leeral léegi incha allah ni nga xam ne moom lañ bëgg ñu defee ko noonu koo dégg ku ne ñaan nga jàppale nu ci ban amee ko noonu ndax nun kat incha allah danañ ko jéem nañ ko suñu bisante ñu ñaan itam mbokk taw yëpp ñu jàppale nu ci kon Cheikh Abdoulaye mu dana wax ni nga xam ne moom lañ ko xalaatee incha allah. wallaahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu santee yàlla sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam yeesal sunu njëbbal ci Serigne Touba.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 ngir sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad Bousso jërëjëf sëriñ Afiye buso waaye jërëjëf Cheikh Mouhamadul Basir mbokk yi kàddu yaa ngi noonu sëriñ Touba ñoo ko jox sunu bopp waaye tënkuun ko ci ak julli wala dem tool wala mu yónniñ ci marché ba sëriñ bi su mam tisaalu amrihi hay su warat mooy baatum ndigal fu la ko sëñ bi joxe rek nga war a defi kon nag sëriñ bi nee nañu mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi dem ci jumaa yi moo xam jumaa jum mën a doon muy jumaa ju Tuubaa yi ak yeneen jàkka yi ak yeneen jumaa yi donte nekkoo Tuubaa sax donte jàkka ja nga nekk nekkut ci réew mi te dégg nga ndigalul sëñ Muntaxa da nga ko war a jëfe ndax ndigal kat dañu wax ne bu ëppee du ubbi waaye bu manqué du ubbi kon képp ku ñëw ci jumaa ji na nga yoraale ab masque bu dee kilifa gu munta yor ab masque te am kaala gu set moog masque bi ñoo benn ñoo yem mu kaalawu ak kaalawum booy dugg ci jumaa ji na raxasu soo àggee nanga laal sel sàppe yi diggante sàppe su ne ak morom ba nit xaj na fa loolu wax nañ palaasum nit kooku nañ ko dindi ñu soreelu mat mètre bu jumaa ji feesee ëtt bi fees kenn ku ci nekk xam ne nag am nga yoolu yoolub julli ji ndax amoon nga yéene ba dañoo jumaa ji nga delluwaat ci jeneen jàkka ju la war a gën a jege wala sa kër nga man faa jullee ndigal loolu daal moo bàyyi ko ci sëñ Muntaxa jaar ci Cheikh Mahmadul Basir ñëw ci xidmatul daayira Muxaddamatul Xidma àgg ci mboolem taalibe yëpp ñoo ngi santaat baax di gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. هذا الذين حافظوا على سياق